Prince Sissoko, aujourd'hui sur la scène de Toi-même, tu sais. On en profite pour vous dire bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est surtout l'orchestre derrière. J'ai entendu quelques... Euh, vocal en Wolof. Et j'ai vu que derrière, ça suivait, euh, qu'il y avait un peu cette symbiose-là. Euh, comment s'est fait euh, cette conception-là Peut-être bien qu'on va découvrir cela tout à l'heure avec Véronique qui nous vient de la Suisse et qui allie avec aisance les techniques musicales ainsi que le jazz, le folk et d'autres sonorités. On va en parler tout à l'heure certainement. Elle a gagné hein, le trophée de Russian World Music 2016, 2016. signé certainement si également pour qu'on puisse découvrir ce qu'elle nous a préparé euh, Prince mon fi nga génn sànq neex lool man boo waxee Cissé wax je suis tellement contente parce que chaque fois damay naan ah ouais euh, parce que moi euh, mon nom de famille c'est Touré et lui c'est Cissé donc franchement on a été gâtés aujourd'hui et certainement on va revenir là-dessus tout à l'heure di nuyu ñëpp di nous ziar ni ma ko waxee sànq président rek parce que yéen ñii xool bu bon boo

de tout faire avec les réformes pour pouvoir mieux améliorer les choses dans l'administration sénégalaise. On va parler de ces lourdeurs-là euh, tout à l'heure avec Pape Ousmane Sissé dans la rubrique Actualité politique et sociale avec euh, son euh, invité dit Mamoun Gaye, nekk artisan professionnel ci kanam tuuti Seigne Mamoun dafa tardé xam naa ndax ni mu rombee sànq ci samay bët jaaxal na ma mais garaawul naa ko naa rek continuer comme tàmm naa di def yooyu sëñ Mamoun kontaan nañu ci li nga teew si plateau mais da ngaa tardé donc je dois le dire dina ñëw it ci wàllu actualité avec Habi qui nous a choisi deux faits de société. On en parlait tout à l'heure. Tchikanam euh, Touti, qui rubrique Actu l'international Mbaïsène qui est là, euh, qui va nous parler de sport, bien entendu, et de, du grand, grand Messi, hein, euh, le natif de Rosario. Je vais je vais dire un autre nom. Laissez-moi juste le temps. Oui, je suis un peu malade. on en convalescence. avec cette très belle musique que je viens d'entendre de si ça si et surtout l'homme qui, avait la batterie derrière. Très technique. Ah, ah. Très technique. Bravo, monsieur. <laughs> Bravo.

defee saa su nekk dina ñëw moom indi ñu la leçon du jour on va parler des 14 millions de euh, problèmes euh, yi nga xamante ne ni Awa Badji mu ngi ci sëgg boobu ba léegi <laughs> mu fexe ba affaire yi sotti <laughs> waaye tey tànnaat na beneen incivisme la wax le mal hein, qui touche les Sénégalais on va en parler si kanam mu wax ñu rek li nga xamante ne moom la tànn pour ñu mën ko waxtaanee fii am nañu it événement du jour ndax it dañu am les couturiers de Thiaroye ñi nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi waajal Ben remise de dons pour les prisonniers de Forbé euh, muy du

Je peux dire Nechna Bouar. Eh. Wow. Et quoi d'autre Nangadef. Et si je vous dis Véronica Rafenga, euh, est-ce que vous comprenez Non. Non Not to do Not to do, oui. Ça, c'est bien. Dama xif, gen jangul ko. Ni nga xif de? Non J'ai faim. Dama xif. Mais Véronica Rafeng veut dire, Véronica, vous êtes belle. Et c'est la vérité. Vous êtes belle euh, par le physique, mais également avec la voix. Non, moi, ce n'est pas important. Alors, euh, on a vu que tout à l'heure, vous nous avez proposé quelque chose avec Prince Sissoko. On peut savoir Hein, le, message derrière. C'est vrai que certes, il y a une partie qui est chantée en anglais et qu'on a vu quelque part euh, où vous dites que vous êtes une passionnée, que vous avez envie de euh, faire en sorte que les populations puissent se réconcilier avec leur culture. Mais est-ce que c'est cela qui a été euh, également transmis dans cette, chanson que vous nous avez proposée La chanson que vous avez entendue s'appelle When We Sing, quand nous chantons ensemble. Oui. Et c'est euh, euh, la, la raison de sa band. Ça a apporté euh, Prince Moussa ensemble parce que j'ai rêvé ce chanson. chanson. Et dans la rêve, Prince Moussa et son frère Sakou, ils m'ont enseigné ce chanson. D'accord. Et après, on a ajouté un part en, Wolof. Et pour moi, ça signifie les les cultures ensemble et les, les, humains ensemble. Très bien. Et c'est la musique qui nous, euh, nous, nous, unissons. Nous Oui. Très bien. Alors, j'ai vu autre chose, je lisais tout à l'heure. Dans la deuxième partie du, du, son, on a vu que Prince nous parlait en Wolof. Oui. Et derrière, euh, l'orchestre suivait avec aisance. Euh, ça vous a pris beaucoup de temps pour pouvoir concevoir cela ou euh, vous êtes un peu dans, tout euh, Vous êtes capable de pouvoir chanter ou produire des sons pour n'importe quelle personne je, ne sais pas si j'ai compris tout bien. Mon français un peu, pas trop bien, mais on a, j'ai écrit le, le, chanson, mais on a fait ensemble

il faut ñu joxante ay loxo ràbbante ku ñëw indi ku nekk indi sa touche. Mm. mooy li mu la wax léegi chanson moo ko bind mais Moussa dafa leen a jàngal lu baree baree baree bare ci biir wolof moo tax gis nga bi ñu awoo sànq danga nga naan sax lii lii lan la.

encore une fois persa la mu ngi koy wax euh, ci tempo bi nga xamantene ni yaangi ci euh, pour encore une fois euh, mettre en valeur les couleurs du pays. waaw loolu comme ni ñu ko waxee dama leen di nuyu déjà ndax si facilité bi ngeen ñu jox parce que ñun di lañ am yóbbu culture bi bitim réew andé ko té yéen yéen a ñi koy wane yéen a mm-hmm. ñu kay taataan wax ko bon comme musique amul frontière. bu gën a am solo mooy nga xam sa cosaan ndax comme lu père wax nii rek boo xoolee moom dafa déggee neneen man ma déggee neneen déggee nuñ ma yare kon du ma am leneen lu lu may wax rek di leen sant yeen ñii heure bu ma ñëwee dama fiy jaar mm-hmm. ngeen di wane li sonnalu leen ñu benn yoon kon te ñun lii lañ soxla ñun ñi nga xam na ne ñooy ambassadeur nekk bitim réew ah comme ni nga ko waxee di félicité tamit ñii ndax xam nga nasaraan boo ko àndee fii nga bëgg a tëggaloo yow li nga nàmp mm-hmm. di nga jël ay at ñii foog naa trois jours dañu répété ici en février cette année, cette année pour préparer, préparer le tour et faire des vidéoclips. D'accord. Oui. Et, et actuellement, vous, vous, vous êtes ici pour un spectacle ou Oui, pour beaucoup de spectacles. Dans la région ou à l'intérieur du pays dans la région de Dakar. Oui. Et à Hambourg et à Saint-Louis Jazz Festival. Mhm. On dirait que vous êtes plus à l'aise en anglais. Ah, comment Vous êtes plus à l'aise en anglais. Oui. You want to speak in English Ah, c'est en français. Vas-y, c'est en français. <laughs> D'accord, pas de souci. <laughs> Alors, Paul j'en viens à toi. Euh, objectivement sans nga sans nga nekk ci ci prince bàyyil prince bàyyil prince je sur Véronica mba mandin ko wala naal maa mooy nii maa mooy bii te te woon te parce que tey dafa jël décision ne du làkk wala fole nii lafta dara yem posé wandi mandin ñee jaabi doo

donc doomu Sénégal on peut féliciter mhm. et puis faire ba lii doon ubbeeku ci ñeneen artistes pourquoi pas am festival yu mag mhm. un peu partout dans dans euh, le monde. Mhm. Alors, on va revenir à eux dans la deuxième partie. Tout de suite, l'actualité sur la toile avec Habisso. Rabi, on commence par Sénéweb. 50 prostituées de Mbour, l'affaire qui secoue la petite côte. effectivement Ndeye Touré xewoon na Dakar fan yee mu liste bu nga xamante ne génnoon na ba mu commencé woon def tolee liste boobu nag moo am mbuur lu toll ci cinquante xale yu jigéen lañ rek daal di publier ci WhatsApp ak yenn réseaux sociaux yi daal di ne rek ñooñu dañuy jaay seen bopp loole nag commissaire bi eh, jot na see daal di woo ay nit ba jot see teg loxo ñaari xale yu góor mais Ndeye Arame Touré fan yi mbuur la xew dafa ëpp ba bu weesoo cinquante personnes yooyu ñu ne dañuy jaay seen bopp am na quinze eh, lycéennes yu nga xamante ne si eh, ndekete dañ doon daw cours léegi bu ñu dawee cours ndaxte dañuy dem jaayi seen bopp ci loolu nag dañ leen jàpp bi ñu leen jàppee teg leen loxo ñu commencé ubbi enquête bi ñu béy enquête am na kenn koo xamante ne si jot nañoo jot yaayam téléphone mu ne dafa jommi xamul mbir mi nu mu demee mais enquête bi ci moom lañ ko commencé ne est-ce que amul benn réseau boo xamante ne moo leen di jaayloo seen bopp xale jigéen ñi seen at entre 14 ans la ak 17 ans. Mhm. ñu doon ñu nga xamante ne si ay mineurs lañ. mbuur soo gisee loolu bari fa ba am na ñu bari sax boo boo waxee mbuur rek seen xel ci loolu lay dem ñu bari dañuy jóge fu nekk nekkul ni mbuur lañ dëkk mais fu ne la ñuy duggee ci réew mi di fa dem ndax mbuur booy xool am na ay auberge am na ay hôtel am na ay villa yu ñu fay luwee waaye tamit dafa doon zone bu nga xamante ne touristes yi foofu la ñuy ëpp di dem di fi noppaloo di fa dalloo te lu ci ëpp dañu naan mineurs yi ñoo fay dem di fa jaay seen bopp kon ndeyaxam fan yi Euh, Mbour moom euh, bu weesoo taalibe bi ak liste cinquante bi am na quinze lycéennes yu nga xamante ne ñëw nañ dolleeku si mais enquête bi mu ngi wëy ndax xale yu jigéen yooyu ku ci nekk démb auditionné nañ la te mhm. euh, li nga xamante ne moo di dossier bi mu ngi en cours ñu xam fu warnent di mu jékki gëtëm sëñ Mamoun ci ah, li nga dégg waaw jéema na mais nag comme que ni ni ko waxee léegi nee na bi mu ngi en cours nañ bàyyi yoon def li nga xamante ni moom moo leen ci war daal lu jar a lu jar a lu jar mhm. parce que dafa doon loo xamante ni day day yàq société daal donc euh, comme que mu ngi en cours lañ leen bàyyi ñu def li leen war rek. d'accord mhm. Awa. Euh, lii boo ko déggee yaakaar naa ni dafay métti sax sa xol parce que ay xale yoo xam ne comme ni ko Abi waxee ay lycéennes 15 ans parce que euh, war a dem jàngi ni xalaat leneen derrière wàcc seen cour yi di daw di dem di prostitué wu loolu dafay métti parce que parents yi wax dëgg yàlla ñi ngi def lu ñu mën ñi ngi yar xale yi euh, parce que dugal nañ leen école ñu ngi leen di jox éducation bu baax pour bu ñu màggee sax ñu mën a am avenir mais au lieu loolu bu ñu génnee doo xam xale yi lu ñuy def parents yi dañ ciy waslu seen àq mais vraiment il faut que xale yi ñu ñu jéem wat len xoolaat nan lañ len meuna a bu baax parce que nga nek am 15 ans di xalaat prostitué wu kon yow bo ëppee ci âge bob mun nga gëna toj dëkk bi té vu que instant bi loxo tek yon tek na len loxo ñi ngi xool nan la ñuy mën a gérer dossier bi nañ leen mën a xool rek teg leen. ci ndax lii bokkul ci sa 14 millions de problème. bu bu ci mi ci biir lii nii problème bu rëg la bu bu man ma déggee tey ANSD ne suñ population bi yokk na ba dépassé 15 millions laa ne ko kon awo na bàyyi. parce que ñun ay man fu ci 14 millions yi ba léegi jeexalagoo. ba léegi jeexagul chaque jour rek ñuy gën a yokkal te vraiment ñoo xam ne euh, ndaw moo war a yor réew ëllëg te bu fekkee ay jigéen nar a nekk ay yaay war a war a joxe exemple bu baax war a doon doon soxna am ay doom

ku ci ne tey soo sañoon sa doom nekk président wala soo sañoon sa doom nekk ministre wala soo sañoon sa doom tekki ci dëkk bi waaye nag parents yi du seen sago du ma ko encouragé lii du ma ko mënu ko encouragé lu bon mun te fexe ba baax waaye tey nañ xool lan moo indi loolu bañ yegsi ci lii mm-hmm. encore une fois il faudrait que ñu jéem a xool naka la ñuy waate ak xale yi parce que nag dama jàpp ni kenn tayut tamit kenn amul tayeef di def lu bonde réew mi metti na ma waxaat ku li ma njëkkoon wax laay waxaat encore metti na metti gu fu metti encouragé wu ma nag lu bon waaye nañ jéem a xool naka lañ koy defee te bañ leen a stigmatiser parce que am na lu tax ñu def loolu. nañ leen jéem a comprendre moo gën leen di lancer comme ça euh, di leen ay def nañ dañoo bon ak dañoo def nangam ak sangam amaana def nañ ko du seen coobare. d' accord ak ñoom a di leen sànni ay xeer di leen wax ak affaire noonu ça ça va pas. day gën a yokk mbir mi ah. ma ne day gën a yokk mbir mi. waaw day gën a yokk mbir mi te réew mi fi ñu toll nii dafa metti réew mi ci boppam a metti kuñ ko dénk ne wax ne nañ koy seetaan ñu ngi koy seetaan ba xam. parce que transition yi ngay def man man laa ah, mun comprendre amul benn logique mais réew mi metti soo déggee lii xale yi def lii nii di jaay seen bopp c'est parce que soo moytu sax dañuy dimbali seen waa que réew mi metti ku yore réew mi nag moom la ñuy waxal na jéem a xool nu mu def di jëltee réew mi ndaxte réew mi metti <laughs> damel waaw bon man de li ma siy wax rek mooy euh, comme li am am na aussi euh, war nañ jéem a fexe ut solution quoi parce que war nañ jéem a créer au moins benn lien entre kër ga ak école ba quoi. xale ba bu jugee kër ga bu ñëwee école ay waajuram xam ne mu ngi école bu ñëw bu nekkul école aussi directeur bi ay waajuram xam ne nekkul école quoi parce que tamit il faut ñu créer ñu solution parce que affaire yi vraiment doy na waar fi mu toll nii. man daal li may proposer mooy nañ jéem a xool solution nan la ñuy def ba daal wut solution quoi man loolu laa si amoon aussi. jërëjëf Pape Ousmane.

Euh, sunu ndaw ñi ñan maanaam nu ñuy dunde am nga ki yaayam am euh, euh, ndongo bi yaayam wax ni affaire daf ko surprendre mooy que xëy na xalaatee ko mooy ne xëy na topp ko. mooy li mbay doon wax da ngay yar sa doom. exactement da nga koy yar da koy topp cest à tey am nañ possibilité yoo xam te ne sa doom bu génnee dafay jàngi am nga la possibilité nga topp ko ba xool <coughs> réellement egg na fa mu jëm bu wàccee nañ lay àndal cest nga nekk.

phénomène la boo xam il faut ñu xoolaat bu ñu wax nag ni ñu amuñu am ñu nàngam no mm. man loolu laay bañ. Sénégal mu ñu wax amuñu repère da nga naan nit ku nekk la la intéresse mu ngi dund. tey loo bëgg xam ci kilifa yi ci wàllu taxawaay boo tapé ci internet nga fekk ko xanaa kay la nga bëgg di ko roy seneen la nekk. te phénomène boobu noonu ñu ngi koy wax euh, Nobelas yi yokku na ko euh, possibilité bi nga am ci connexion mu yomb nga nekk ouvert au reste du monde xam nañu réseau yi fépp lay multiplier donc yëpp ay phénomène lu ñu gis ci lycéen yi barki démb.

wuy jur yi jiitu ci kilifa yi nga xamante ne am nañu baat bu ñu waxee ñu déglu leen soo bu ci su ko defee xëy na phénomène yu bëri dana wàññi. wax a ngi wax mais dañu leen déggul. dégguñu leen. mais problème nag euh, dafa mel dañuy gën a avancé muy gën a dem muy gën a jëm kanam ndax dañu nekk ci société nucléaire ku ci nekk day bëgg a dëkk à part nekk seen appartement ñii nekk lii nit yi tamit di daw dépense donc forcément regard bi nga xamante ne war nañ ko am ci njaboot gi ak rythme bu ñuy demee nii naka la ñu war a def bu mën ci delluwaat ba nga fexe ba ñu fexe lu mel nii ñu bañ ci euh, àgg. xam nga bu ñu nee quinze xale yu jigéen yoo xam entre quatorze ans dix-sept ans <coughs> ñooñu mun nañ ñi peut-être mënaguñoo tëj seeni waajur. Mhm. ñooñu xëy na amaguñu fitu dem luy ji appartement. ay mineur lañ. mais nag lan la xew ci réew mi kon. <laughs> Euh, euh. du du du du yaa ngi weer sa bopp de. du lu neew nopp bon bi laa la jox dégg naa leneen. ah lu ma xam la. <laughs> léeg-léeg dara dina neew yi nga ni ki moo jàpp léeg-léeg lex dina neew yi nga ni ki dafa jàpp forme fekk feebar la <laughs> du lu neew yi rek forme la. <laughs> billaay du lu neew yi rek forme la may nit dina neew yi nga yaakaar fekk taab la feebar la xale yooyu tey. waaw quatre-vingt-dix pour cent bi. su dee nga nekk ak sa doom ci biir kër gi. yaa ngi ak papaam ci biir kër gi mhm. xale bi su bëggee baali ni la yaay maa ngi gaa baali nga ne waa gaawal ñëw dinaa dinaa la nëbbal sa papa mhm. nga koy nëbbal xale bi di baali di ñëw bu baali jee ñëw léeg-léeg mun la xaj benn konetu dibi ñëw indil la mhm. wala benn sandwich ñëw indil la wala boisson laajoo ko foo ko jëndee nga gis xale bi moo takk greffage boo xam ne trois cent cinquante mille lay jar cheveux naturel doo ko wax dara ëllëg ak si bu ne lii tëll nga bi fu mu jaar mais mi ko daan ko bay bayal ci biir part de responsabilité parents yi xale bu am 14 ans 17 ans mënuma jàpp ni kooku war na mën a def lu waajuram mënta faj man xam na laa mënul sama doom ji maa ko jur mais mënulu ma ko dara wala njaboot gi mm. njabootu kinaar lañ man loolu mënu ma ko dégg man sama doom maa la yilif ñi nga xam ni nag entre baase nañ ko vingt ans vingt cinq ans magum ja pax bu fa loxo yàggee rek dafaa gis njariñ mm. parce que ñi dafa am ñoo xam ni dañoo yàlla moo leen bind ñu bëgg lu bon seen yaay day yor lu nekk enfant gâté ñuy yàq leen ñu dem ba vice la am. du xaalis ba sax moo ko demee vice la ci ñoom danoo bon baaxuñu. am ñoo xam ni nag ñàkk moo lañ ciy dugal mais olof Ndiaye dañ ne ñàkk gore wét gore wét li ko gore. Mm. ana ngor. Mm. dëkk bi neexul rek yow da ngaa war dem jaay sa bopp jigéen nga war a nekk yaay. war a nekk war nekk mère de famille war a nekk ëllëg ku ñu tudd war a jur koo xam ne ëllëg ñaan kii yaayam moo gën. Mm. yow nga pasar pasare sa bopp ndax lan da nga ñàkkoon. dama ni su ma ree tey laañe. Ah. laañe dafa xam. sa biir feesu sama biir fees na xam lan moom solo ngor kaas <laughs> yi wute mais ku xëy guux hmm. ku doy la sa ngor di buur lii ñoo fexe fexe ba réew mi li état bi def ci war a jóg parce que ñu ngi tooñ waa mbuur ah mbuur mbuur amaana ñoo koy def dëkk ñu mbuur hmm. hmm. mais mbuur lañ koy defee ji kon nag hôtel ya fa nekk ak auberge ya fa nekk ak néeg yooyu yooyu nan ko càmbar dindi leen foofu parce que dama ni këriñ du jaaru de kër yi du jaaru bu jaaru nekk xal Eh. bonne nuit. wala teel na da nga a joxe ah, koy jëlaat rek yaa ma rafet. moo ne bonne nuit xam nga li mu wax ne état bi daf cee war a jug lu tax sax ñu teg leen loxo mooy police. Euh, foofu Mbour dañoo commencé di nettoyer di xool lépp lu fay ay ay auberge clandestin yooyu yëpp ñu commencé di ko dindi lool sax moo indi. comme ni ñu ko defee yi noonu la commencé am Mbour mais Ndeye Arame Touré affaire bi li ci garaaw mooy fi muy xewee. mooy école yi. Mm. Euh, fan yi mujj yi yëpp scandale boo dégg école mu ngi ci. foofu nga xamante ne temple du savoir la woon dañu fa doon jànge léegi scandale boo dul waa daawul dégg da nga ngi dégg ñooñu ndongo yooyu nga xam ne ñooy dem di fa jàng ngay xool responsabilité bi si si ñan la. ba léegi booy wax rek élève ngay wax léegi sax étudiant nekk étudiante yi sax léegi ay mag lañ mais ci élève yi ngay jëm. Mm. da lay wax ni kon mineurs yi ñoo koy def. kan moo fayir mission wam wala ndax xale yi ñoo bëgg loo xamante ne nii mënuñu koo am ndax Père Sala junj na ko léegi bëgg nga teg cheveux bëgg nga yor téléphone iPhone X fekk xëyoo gontoo hmm. nooy def te ci góor ñi waaw te ci xëy gont sax mayu la ko hmm. am na xëy gont yoo xam ne boo ci passé balaa weer bi nii balaa weer bi nii mën ko nit da ngay dafa am say bëgg yoo xamante ne doo si àgg xam nga yaay ji ne dafa am lu ko bett xamul woon ndax doomam da koy def lu koy indi mooy am na ñoo xam ne seen doom CI ba terminal xamuñu fu seen yoonu école doom nekk du ñu mm. laajte bulletin xamuñu professeur bu koy jàngal xamuñu seen doom la mu nekkee ci école bi mm. te yaakaar naa ne chaque trois mois war nga dem ci école mm-hmm. dem wax ak sur bu dee ci lycée collège wax ak surveillant bi nga xam sa doom ndax mu ngi def cours régulièrement ndax léegi falsifier bulletin sax mu ngi ci dëkk bi ñu defaral la bulletin nga falsifier ko defar sa bopp ay notes yi baax ak yépp mu ngi fi kon donc le fait ngay jug di dem école di nga xam sa doom ci la la ne di nga xam ndax day daw cours wala dawul cours mhm. loolu yëpp tamit kon fuite de responsabilité wala manquement mi ngi am ci parent yi côté boobu noonu tamit war nañ xippi xool bu baax ku ne sa doom fan lay dem ak fan lay ñëw ndax naa am naa cours wàcc naa rek dafa yomb torop la yaram président Mbaye. bon moi je suis un peu partagé par rapport à l'avis de. Euh, de Abi quoi de Abi je suis un peu partagé parce que il y a des parents qui ils sont en train de suivre leurs enfants mais dañuy jéem a rattraper sur deux tableaux à quatre à cinq tableaux parce que su fait ne yóbbu nga sa doom mu jàngi su fekkante ne yo ya yore keur gi da nga jéem xol nan ngay utiliser dépenses pour jox xane yeneen defa nek des fois les parents veulent vraiment suivre les les mm. enfants mais d'une commune.

mais des fois dafay am yenn yoo xamante ne mënoo nekk fépp nekk fépp nag yàlla rek ko mën. non xamal tax xamal tax foofu ma li nga wax am na. li nga wax am na parce que nit ki mënoo xëy di daw dépense. bëgg sa ginnaaw doom nga topp ci. mais da ngay jiitu doom laata ñu lay jiitu ci euh, euh, gis naa koo xam ne xale yi dañ leen di yar ci biir kër. <laughs> bon ah, bi dëkk ci biir kër gi di gis lu baax suba ba ngoon jot. génn ba yar gi yaay la. liggéey. man gis naa loolu leneen la. non man gis naa gis naa koo xam ne jigéen boo xam day fóot. Mm. mais actuellement doomam bu jigéen mi ngi cité xale boobu kuy joxe exemple ci koñ bi ci moom ngay joxe ah, exemple. merci. xale ba am jom. <laughs> merci. merci moom koy def ci moom da nga koy imposer gis nga xale loo def ci moom loo def ci moom rek xale garab la da nga koy jubanti ci bi muy tooy mais boo bàyyee ba mu kii boo ko jubante day damm gis nga wax yenn wax yi man sama doomu jigéen xam la lan lan la daan wax nga baal ma ku ci def dof lu ba xale bu góor trompé la man bal dóor sama bopp bu ko defee nga naan ay papa ay wax yu rëy laa lay wax hmm. ba foo toog yooyu nekk sa bopp yu am wata yu précoce. nga wax sëñ nekk fépp kenn mënu ko. mais ku nekk nga waslu ak mais dafa bokk ci li nga xamante ne daf koy encouragé mooy quartier yi. wax na ko léegi ñu am vingt cinq ans ñooñu dañuy dem police ñu defal jox leen carte boo xamante ne daf leen autorisé loolu loolu dañ ci war a wax. parce que lool bu ko xale yi euh, euh, xamee bu ko xale yi yégee ah dañ naan lii kat. peut-être baax na. Mhm. war ko baaxul donc carte yooyu aussi war non ci wax. ni ñu koy distribuer ak ni ñu en fait pas distribuer ni ñu koy alors waaw balaa ñu ma maa fi wax léegi dañ koy maye ci mbedd bi. Ah, <laughs> alors on passe à l'actualité euh, sociale avec Papa Ousmane Cissé.

benn bi mooy boobu moom feebaru administration wu Sénégal la mooy procédure bi dafa yeex benn ñaareel bi mooy euh, tey artisan bu fekkee dafa góorgóorlu ba gañ a marché pour mu livrer il faut mu am avance de démarrage donc en tant que amul avance de démarrage du mën a livrer tey man gis naa ay artisan yoo xamante ni gañ nañu marché mais ba léegi mun ñoo exécuter mun ñoo livrer parce que amuñu avance de démarrage avant le démarrage mooy. lenn ca la ñu waxante. ñu mën ko téq ngeen tambal voilà tay ji bu fekkane ne gagné nga benn marché wu 2 millions wala 5 millions ñu jox la 2 millions 500 nga commencé. artisan boko jox mu exécuter livrer à temps mais lolu mo amul te pourtant dañu dañu wax ni dañu paré pour jàppale artisan yi ta amna néñu amna ñu bo xamanté ni dañ ko dañ ko fa teg pour ay pour artisan yi ta ay milliards la mais pourquoi pas xaalis boobu mënuñu ko débloqué jox ko artisan yi. loolu dinañ ci ñëw mais li nga wax sànq ni ñaar moo jafe ci liggéey état nga wax benn bi wàllu procédure yi tax sax euh, nga toog fi nga toog euh, fi ñuy jaar nga ni dafa dafa dafa dafa kii dafa maanaam bëri mën mhm. euh, nga ñoo dikkal loolu nga leeral ñu sa à ci procédure yi fi nga jàpp ni xëy na waaw dafa dafay yàgg bi procédure sax bu fekkee artisan bi xaw na oyof tuuti parce que artisan bi tey ji bu gañee marché délai de 60 jours lañ ko jox mais bi ñu gën soxal dëgg mooy avance de démarrage ñeneen ñi aussi ñoom bu ñu en tant que euh, livré wuñ duñ leen fay mais le problème mooy ñoom bu yeexee ci ñoom dañuy am problème mais artisan bi problème bi am dëgg dëgg dëgg mooy avance de démarrage et pourtant am na yeneen banque ay banques yoo xamante ni dañ leen fi teg pour ñuy jàppale artisan yi banque yooyu boo demee ci ñoom lu lay laaj mooy kayitu kër kon nga bëgg a ni même même même bu fekkee gagné ngeen marché eh, mu jaar ARMP DSMP procédure yi ñu def yooyu baax na loolu du problème. loolu coow li mooy. parce que ñun avantage bi ñu am mooy euh, suñu jotee contrat rek amatul euh, loo xamante ni moo ñuy baare bu ñu livré le lendemain ñu fay ñu mais xaalis bañ fa teg pour ñun mais nañ ñu ko jox avance de démarrage bu ko defee ñu mën a exécuter maanaam ñu mën a livrer à temps signé do len ko waxtaanee avance yoyu non bala ngay signé contrat. di xaar avance waaw xam nga problème bi moy loi bi permettre len ñu jox artisan bi avance de démarrage mais loi bi ay nit ñoko ñoko ñoo ko ko mais loi bobu lañ wara corriger xoolaat ko. bu ko defee ñu mën a ñu mën a. sëñ sëñ Mamoun même ñëw si beneen aspect. Hmm. Euh, artisan yi ngay wax ñu bëri ñu ngi ci secteur informel. waaw. te pour nga liggéey état am na structuration boo xamante ne moom nga war a nekkee ba pare. Mm-hmm. pour que ñu mën la wóolu jox yenn yi mooy tax sax mu yombal la tamit ci banque yi. boo mm-hmm. nekkee ci arab yi war.

dinañ livrer qualité dinañ livrer quantité mais nag ñëpp yamuñu am na ñoo xam ne ñu ngi secteur informel mais ñi ngi am na ñoo xam ñi ngi formel mm. mais amuñu doole pour dem mais ñooñu état bi dafa dafa ñàkk doole bi lan la hmm? ñàkk doole lan ñàkk doole bi financièrement mënuñu dem techniquement mën nañ dem administrativement mën nañ dem mais financièrement état leen war a pour ñu dem mais ñu ci bëri ci da ngeen a informel yi may ak taxawaay pour ngeen mën a jot ci commande publique bi fa lu muy laaj est-ce que tamit condition yooyu noonu remplir ngeen ko bu ñu koy souvent ay ay capp-cappal la rek. Ah, ay bras long moo di may wala yu mel noonu. souvent ngeen di yegg foofu. xam nga loolu moom jóge na fi ay bras long yooyu moom. par rapport ak man système bi ma gis nii. réew mi. Euh, du ma ni jóge na fi mais wàññeeku na fi ah. quoi. Hmm? Hmm. <laughs> du ma ni jóge mais na fi mais mais wàññeeku na fi mais en tout cas li am ba am daal mooy nee na ñi dañu informel ñi dañu nekk formel. mais am na ñoo xamante ni ñu ngi formel euh, techniquement mun nañ dem administrativement mun nañ dem mais financièrement mënuñu dem. persaal ndax moom mii sax formel la. la persaal ci ci kii la bokk professionnel yi nekk si. professionnel yi Sénégal xam dafa gaaw. man damaa dem APIX. wut samay këyit am sama NINEA am sama registre de commerce am samay papier. Hmm. wax dëgg yàlla gañeegu ma marché état mais maa ngi gañ marché privé. Hmm. leer nañu sonal ma lool. boo boo gañoon marché marché état. waaw li nga xam ne affaire yi. liñ ma waxee sax marché état dama naan man kon est-ce que procédure bi yëpp est-ce que man dama naan du anu, ma ko jaral. ah commande publique bi su entreprise bi eh, méngoo ak li nga xamante ne mooy critères yi état hmm. joxe. Hmm. su postuler dinañ ko jox chance. xam nga OLP bois man ci laa bokk ci laa bokk mais tey ñi nga xam ñi ngi ciy gagné marché ñu tuuti lañu. te dañuy lijjanti lijjanti ba jot ñi ciy jot aussi. dañoo mën a demal seen bopp financièrement parce que tey bu ñu la joxe benn marché cent millions te yow dencoo cinq millions eh, xoolal loolu nooy demee. léegi nag man je préfère. Mhm. boobaa ma dem ci benn privé mu jox ma lu tollook sama doole. te ñu bëri nag tey euh, Mamour dina xam ne li may wax ñu bëri tey dinañ gagné marché ñu jox leen. mais pour ñu démarrer dañuy dugg ci dëkk bi lebal lebal lebal lebal lebal ba ba a démarrer ñu démarrer. Hmm. bu ñu démarrer góorgóorlu ba livrer mais balaa ñu leen fay dinañ toog 5 mois 6 mois presque 1 na ñu soo leen fay bor yooyu topp leen ñuy jëm police ak gendarmerie rek ñu bëri ba seen entreprise day mujjee tëj. parce que man li may li ngi lii nii sama secteur lii jàppoon ngeen ni Mamour invité leen ma fii ma toog. <laughs> dama jëm sama fii dama jëm parce que ça c'est vrai parce que li may wax ni moom xam na ko. man na gañe ko marché état mais procédure yi néew pour nga wax ko ñaari yoon yàlla bu ma ko am foofu noonu ah euh, li mu naan tey ku gañe marché bala ñu lay fay day yeex loolu par rapport ak man li ma dund ah, ak li gis franchement jógee na fi hmm. tey boo gañee marché boo amee contrat nga gañe marché boo livré ñu fay la man côté bi may waxee mooy concurrence bu déloyale bi ma ko mënee wax ndax des fois da ngeen di faral di wax état dafa même bu dul seen domaine da ngeen di wax état dafay faral di jéggaani ñeneen di leen jox ay mm-hmm. marché mm-hmm. yu nga xamante ne mënoon na ko jox peut-être artisan wala ouvrier yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ndax yéen am ngeen di ngeen liggéey qualité bi nga xamante ne si moom lañ soxla ba ñu war a mën a jël ay marché bi nag au mobilier national am na pacc bu ñu jagleel artisan yi si réew am na mais dañ ko xeet public le mobilier mais euh, loolu loolu loolu pour cent la pour cent la 15 ah, pour cent la mais néewuñu la da ngay yem ci 15 pour cent yi rek gis nga pour wax la ni affaire bi mi ngi progressé mais dafa des cahier de charge bi am na foo xamante ni dañ la naan lii kat forcément local lay doon du doon importé mm. pourtant loolu bu jëkkoon amul woon mais léegi am na boo xoolee deux mille euh, deux mille quatorze ñu ngi woon douze virgule soixante dix pour cent nga xamante ni artisans yi bénéficié woon nañ ci cent quatre vingt treize millions cent quatre vingt trois mille trois cent vingt cinq deux mille quatorze 2015, nous 263 millions 928 000. 2016, nous 799 millions 550 francs. 2017, nous 1 milliard 981 millions 285 658. Donc, nous avons progressé, mm. mais il faut mm. Et pourtant, le budget est le budget pourcentage bi ñu am 15 pour cent yi dañ ko waxan rek teg ko euh, teg ko. ah yéen maamoon mun ngeen sant yàlla de yéen ah, amul. li abi wax boo ko négocier ca ndorteel di nga am avance de démarrage bi commencé. <laughs> yow kon président li muy wax nii ndax moom ah, na ma jéggal ndax xam na ko est-ce que administration kon am na problème. gis nga bu ñu réglé woon avance de démarrage bi. jeex na. président Mbaye xam nga tey na ko léegi nee na am na ñoo xamante ne bii tey ñoom ñuy financé seen bopp suñu joxee marché exemple bëri na mun naa si jël kenn rek mbay fay CSTP lu mu defar moo ko financé boppam benn ñaar dégg naa léegi ki nga xamante ne bii moom mooy euh, monsieur nakati encore Mamour euh, expliqué na que ni dafa am lenteur ci li nga xamante ne moom mooy démarrage marché mais yaakaar naa su fekkante ne dem ngeen ba bëgg leen est-ce que waru leen ci jiitu wane carrément ni pare ngeen pour am marché yooyu ba pare balaa ngeen di xaar état

Euh, xam nga bu njëkkan wala ay at ci gannaaw dañ doon wax naa artisan yi bu ñu leen joxee marché du ñu exécuter maanaam du ñu livrer à temps euh, bari nay entreprise yu xam yoo xamante ni ñi ngi fii nii dindi nañ loolu man dama lay euh, dama lay wax sama bopp parce que dégg naa koo xamante ni ci administration bi la bokk nee na artisan yi boo leen joxee marché du ñu exécuter mais bi ma gañee marché ci année bi Euh, un franc joxuñu hmm. et pourtant nous sommes livré il un an ñu ah, voilà deuxième année hmm. deuxième année la même chose hmm. donc loolu problème gis nga problème bi du avance de démarrage nous y ko un ko problème bi réglé ndax a ah. importé importé yi dañ ko defar importé jékki-jékki wu jógee ci asamaan si wàcc ay jinne defaruñ ko ay nit ñoo ko defar mais nit ñooñu ñi ko defar ñoo seen seen ay seen ay réew dañ leen a jàppale léegi pour pourquoi pas ñun euh, suñu état waruñoo jàppale jàppale nañu gaa mais dafa des benn bi des rek mooy problème bi muy avance de démarrage. mais yow nga yaakaar ne yeneen artisans yi duñ la mere waaw man ma dégg. ñu nekk kii may seen wax na ñu nekk suñu jur di jooy déjà rek ñi nga xam ne ñoo nekk ngaay. di defar ay dàll. waaw ñu jooy le fait que ñuy bàyyi ñuy dugal yenn yenn yenn. matière première te ñoom ñu ngi koy defar te kenn jàppalewu leen. xam nga loolu lu koy xeex soxna si. Hmm. nga jàppale artisan bi gis nga bala nga naan naam danga fay nekk euh, wax naa ko léegi gis nga meuble importe yi ñëw hmm? fii meuble bu fi dugg sénégalais mën na ko defar dàll bu fi dugg sénégalais mën na ko defar mais du ay loxo kese moo koy defar bu ñu yëkkati xaalis bi di ko may artisan bi day det wax nañ ni artisan bu defee projet ñu lebal ko xaalis mais loolu ay wax la rek doonul loo xamante vraiment lu fiable des na procédure bi day yeex. kon bul ne nag xam nga non xam xam non non. xam nga lu koy saafara. artisan bi bu gagné marché. hmm ñu jox ko avance de démarrage xam nga lu tax boo ko joxee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon soxlaatu ko te fu mu jaar dina progresser pour defar ay euh, manam yo xamante ni dafa nek à la mode donc lool moy tax artisan bi progresser. aw Euh, Mamour lu ma koy laaj parce que mi ngi wax que ni état bi daf leen war a jàppale. Mhm. Euh, te it wax na euh, ci biir waxam ni am na ñenn ñoo xam ne. bu ñu leen joxee benn marché ñoom xaaruñu état ñu am nañ seen xaalis bu ñuy démarrer seen bopp. am na ñenn si ñoo xam ne mënuñu démarrer seen bopp foog ñu xaar ñu avance leen mais est-ce que yéen seen biir am na jàppalante parce que tey jii mënoon ngeen teg benn mutuelle boo xam ne war a teg leen loo xam ne kenn kuñ ci jox avant kenn ci jox benn marché rek di nga mën a ci. ci li nga xam ne mooy mutuelle boobu fonds boobu commencé defar ci marché boobu ñu la atribuer boo paree bu buñ la fayee nga remboursé ko mais bu fekkee tey jii nii Massamba buñ ko joxee am na lu mu démarré Demba buñ ko joxee amul lu mu démarré kon yéen seen biir amu leen jàppalante balaa état di leen si fekk si. xam nga su boobaa luy am. Mhm. saafara su jur jàngoro. tey bu ñu créé woon benn mutuelle man damay ragal mbuum am ci comme que dañu ne ay milliards nga fa taxaw di ñu xaar ñun ñoo ko moom mais nañ débloqué xaalis boobu loolu mooy B mooy A bi A bi normal bu fekkee A bi mënul dem te man yaakaar naa ne <coughs> parce que loi bi permettre leen ñu euh, jox artisan bi avance de démarrage mais nañ ko corriger xoolaat ko mais bala ngeen di tok di xaar état état est ce que du ngeen jéem créer dara lo xam yeen di ngeen mëna a demal seen état bi ñëw fekk silence leen xam nga fofu day day day euh, day xaw a compliqué parce que buñ créer ben mutuel c'est-à-dire ku nekk joxe benn somme xaalis boobu pour pour gérer ko day xaw day xaw a difficile. persaal. waaw gis nga euh, li a wax ni amone ben benn euh, bu nekk petit joko joko Bois. joko Bois. xam nga len ñom ñu nekkon pàkku tali entre tali bu bees ak tali bu mak pàkk bi noonu. xam naa ko. ay atelier menuiserie la ñu woon yu bëri. Mhm. ñu amoon benn GIE bu tudd Jokkoo Bois. Mhm. li awa wax nii daan nañ ko def gars yi ku ci entrepreneur bu nekk maanaam chef d' atelier bu nekk da ngay ñëw affilié ci. yore nag say en-tête yore say ay bu amee marché. Mhm. da ngay ñëw foofu bu dee amoo loo démarré. ñoom ñooy jël seen seen budget. lebal la nga liggéey mooy li awa di wax xam nga même bu fekkee état defalu leen loolu. pour artisan yi. maanaam sa entreprise sama entreprise entreprise yu mbay seen xam nga ñu ay chef entreprise lañu. Mhm. bu ñu amee boo amee marché te amoo loo démarré ñu ñëw lebal la ci kees nga démarré liggéey ñoo fay du foofu ngay waxee. loolu amoon na benn kii bu ko doon mu tudd GIE. Jokalante mais mais loolu am na banque boo xam ne foofu mais mais c' à dire c' à dire c' à dire. xam nga fan laay waxee. Mhm. gis nga état. Mhm. moo war a dimbali doomu réewam. waaw bien vrai que am na ci xale yoo xam ne lebaloon nañ leen xaalis ñu kii mais xam na lañ bi hmm. ñii daw nanu ñii tëj nanu ñii ay boro ngi leen di toog amatul léegi donc dangay dem xaw ma nag gars yi ñoo neexul la dimbali xaw ma ñooy dimbalee ñii dimbalee ñoo xamul yoon bi jaar pour hmm. dimbalee parce que tamit sama classe gi nag bu ñu ñëwee tey am benn marché euh, cinquante million salle bi nga ñëw jox ko vingt vingt cinq million li muy njëkk a def mooy yi dem takk ci ñaare jënd ci benn oto 5 millions commencé jaay jaay taar doo livré à temps doo doo dem cëng doo dem tëgg doo dem cëng nekk ci diggante bi ah te garabu werante sëmmi ñu koy gor xam nga lu <laughs> dëgg loolu moo non loolu mooy bëri ci gars yi ci bëri gars yi léeg-léeg boo leen avancé dañuy jaay non loolu naa ne milieu xam naa xam loolu xam naa tey kay dal tey moom secteur sala ah. loolu lu neex a réglé la gis nga état bi am nañ ay mécanismes yoo xamante ne suñ joxee artisan bi avant de démarrage lu ñu ko joxe rek toog seen bureau ah. Eh. il faut ñu équipe boo xamante ni moo ñëw di leen saytu. te yow boo boo gagné woon benn marché wu cent million ma jox la cinquante millions di ko def le tout pour livrer ma. parce que cinquante millions bi tas moo tax. mais ñëpp yemuñu ah. nag. looloo tax nag tey jii bu fekkan créer nañ benn avance de démarrage wutal ko mécanisme boo xamante ne artisan bi du mën a jaar fenn. ba du livré. mais yéen ban jéego ngeen. Pape s'il non parce que wax na la nii non moom wóoluwul loolu structure bu créé ñu la tudd waxaat. ala wax na ko léegi. léegi mën nañu ñëw si euh, matière bi ngeen utiliser. parce que nag euh, fi ngeen koy jëlee am na solo ñu xam taxi yi dafa wàññeeku wala bois bi ngeen di jënd gën na yomb si yéen. taxi yi am na bois yoo xamante ni des fois dafiy dafiy dafiy xaw a jafe quoi. Euh, des fois bois Djibouti des fois da nga da ngay bëgg a defar benn chambre à coucher mais pour nga defar ci quantité bu féké ñaar ñett amul problème mais ben quantité bi <coughs> des fois day xawa day xawa a quoi fan ngeen koy jëlé bois bi fu nek lay jógee ci ci ci ci réew yi hein. sous raison bi quoi. fu nek mhm. lay jógee ben loolu du problème bi dé soxna ci <laughs> non déet man avance de démarrage nga laa bañ nga tuddaat. ah dina ko ndax wax nga ko waxati ko wax waxaat. seul problème bi ah, artisan yi. man man man Sala. soxla gars yi moom état bi fexe maamul. waaw ñëw avance am yéex mu bëgg ñu ko def gars duñ ko def xam nga lan la gaa yi mën def. Mhm. wutal say papiers yu normal ñu def appel d'offre nga def sa protocole d'accord yóbbu say dossier protocole d'accord boobu ñuy signé noonu. Mm. li ci nekk loolu la gars yi mais gars yi mu mënoo fexe ba ñu njëkk laa jox euh, avance nga dem liggéey ñëw lii duñ ko def. gis nga même même yi ndaw ndawaan yi. yow yow El Hadj yow euh, kii euh, mm, Saala. Mm. sax de wallaay. wallaay El Hadj <laughs> naa daw naa Safa daw naa Maro. <laughs> yàlla nga dawaat amiin ñu dawul daw. dégg de ah. kon su boobaa. bu ñu nii dañu pare pour jàppale artisan yi kon dañ naan artisan yi kat ñuy jàppale seen bopp. mais xam nga Mamour état. xamul xamul wax tubaab bind la xam. voilà bind jooju nag da nga koy jël. waaw non mais mbay mbay sax xam nga boo amee métier. non boo amee métier mbay boo amee métier. une fois am métier. jaar ci yoon bi nga war a jaar. Mm-hmm. xam nga lan laa bëgg man lan laa bëgg man ñu xam ko pour ñuy seetaan. parce que c'est pas difficile compliqué wul. état moom. topp yoon munoo fexe ba avance boobu. Mm-hmm. ñu joxe ko. parce que loolu ñi ñu fi jiitu ñu ñu fi jiitu suñu mag ñi dañ ko am naa suma ki ma jàngal métier wallahi alazim ba bi muy gaañu HLM bii mhm. yoral nañ ko ay xaalis mhm. je t'assure ci télévision la ki ma jàngal métier vieux Doudou Mboup ba bi muy gaañu HLM yoral nañu ko xaalis mhm. te ñooñu suñuy papa donc affaire bi ñun peut-être ni ñuy tombeel am na njariñ parce que léegi am nañu 15 pour cent ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci commande yooyu ñuy voilà mais suñu papa yi amuñu woon loolu mais avance bii moom xam tax yi duñ ko def confiance bi daf fi dul nekk d' mhm. parce que dañ naan bu ñu joxee Saalum Bigué est ce que Saalum Bigué du daw. benn ngi ci. Mhm. est ce que Saalum dina ñu livrer suñu matériel à temps est ce que qualité bu ñuy liggéeyal est ce dina baax léegi nag dañ naan ko nag démarrer la sa bopp. Mhm. boo démarrer la sa bopp nga livrer ñu xool mu doon qualité nga livrer ko à ñu ne ah kii kat wax dëgg yàlla nañ ko accompagner. mais gars yi duñ jaan ci pax. Hein? non euh, on va on va passer parce que mon day a légué sur euh, sur mhm. en tant qu'avance de démarrage Amoul, mhm. il a merci beaucoup Mamouna artisan professionnel hmm. ah ah sëñ ngay jeex na nag. ah jeex na waaw sa ah, temps de. Ah, yeneen invité des na. Jupiter jox ko mu defaraat ci dëkk bee ko defar loolu moom leer na. voilà on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Hmm? décor bi yi fi nekk yëpp ki defar lii xam nga bokk yi nekk fii. mais nag ay kii moom nag ay qualité lay defar wax dëgg yàlla. ay qualité lay def bokk la yi gars yi xurdab yi ci mbedd moom. vraiment moom qualité qualité bi moom ñu ngi ci ñu ngi ci ah. góorgóorlu ñu bari aussi ñu ngi ci góorgóorlu. ñëwoon na sax bu ñu sponsorisé suñu D'accord. Ah, Merci beaucoup. Nous observe une page publicitaire. On revient avec euh, Véronique et son groupe. Toutes les informations sont disponibles sur cne-info.com. Les chemins de l'information juste et fiable. Politique. Vidéo.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 Puisée au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamanceaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime. La Casamanceaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamanceaise.com. Ah, euh, une excellente prestation et on tire notre chapeau à celui qui euh, hein, joue la batterie. Franchement, on avait l'impression de découvrir hein, quelqu'un qui fait euh, partie de la famille des griots. On peut se le permettre parce qu'on avait l'impression d'entendre <laughs> un Sénégalais ou quelqu'un qui puisse. On peut avoir son nom Samuel, Bao. On va dire. Euh, bravo, bravo, Bravo. Merci également à, toute l'équipe. Euh, vous n'êtes pas euh, mauvais, mais il est excellent. <laughs> Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Qui monte ce le Qui qui donne Baba qui qui moi qui que Mbaye. Ah, d'accord. <laughs> <laughs> alors euh, on a vu également quelque chose qui nous a tous euh, disons transportés on va ah. dire parce que euh, on était là derrière à certains apprécier, d'autres danser, comme c'est le cas avec même Abby qui n'était pas censée danser. Mais on a vu <laughs> qu'elle n'a pas pu se retenir. Encore une fois, on est assez surpris de voir ce savoir-faire-là, ce mix que vous avez pu nous concocter avec toujours euh, des sonorités africaines, on va dire. Et euh, derrière, on retrouve également ce que euh, nous, on n'a pas l'habitude de voir, un orchestre qui arrive à se mouvoir dans un style musical qui n'est pas le, vôtre. Alors, c'est notre, notre tour est une collaboration et une exchange échange, musical entre Suisse et Sénégal. Et on a fait le, euh, avec Mbalach, avec notre version des songs. Et c'est nouveau pour nous aussi, et pour apprendre. Alors, vous me euh, disiez tout à l'heure que vous aviez des dates prévues euh, pour les spectacles en vue. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quand est-ce que ça va se faire C'est demain, c'est le 18 à Blesse Senghor, le centre culturel, et avec les ballets. Mhm. Et euh, le 19, c'est euh, le Rabin Nightclub. Oui. Le 20, c'est au cave du Jolof. Et le 21, c'est un festival jazz rythme à Charoy. Mhm. Jazz à rythme à le, Le 24, c'est le relais à Hambourg. Oui. <laughs> Et le 26, c'est à Jazz Festival Saint-Louis. Mhm. Très bien. Alors, du, jazz, certainement, présent. va aimer ça parce que moi si high level bi la yow ay si pourtant j'écoute bien c'est pour cela en fait la musique m'a transporté et tout à l'heure je parlais de la batterie mais aussi l'homme qui a la guitare aussi il est en train de faire de très très bonnes choses même aussi juste derrière sans pourtant mm-hmm. oublier les percussionnistes oui marimba akorabi aussi en tout cas ça a été une ben ensemble, une extraordinaire. Ça a été un cocktail magnifique. Aussi la belle voix suave aussi que vous avez pu dégager. J'aime la musique parce que quand j'entends un grand monsieur comme Ismaël Lo chanter, je vois encore en vous de très très belles sonorités. Merci, merci beaucoup, euh, Président Mbaye. Pessala, vous avez Non, demandez l'autre là, comment il s'appelle encore Samuel. Samuel. Bon, euh, pas Samuel Maintenant, je vous te géoloriser. Géoloriser, griot. Parce que nous sommes des griots. Lui, c'est mon fils. Parce que son papa, c'est mon cousin. Mais toi, tu, euh, tu frappes le bâti comme un griot. Comme un Dungaï Rose. Ou bien euh, le papa de Papa Ndiaye. 5-5. viens 5-5 comme ça. À cause de ça, je te donne un quart de membre de griot. Maintenant, tu es griot. tu s'appelles Ibrahim Tchoum. Cuun Demba Yacine Sa Baba Yacine Sa Góor afumi ci bana kos géolalisé naa <laughs> oui s'il vous plaît. J'aime bien donner des crédits à eh. Maurice Samb. Maurice Samb, il est un Sénégalais à Berne. Et je travaille avec lui depuis 5 ans. Super. Il m'a enseigné beaucoup de la musique sénégalaise et j'aimerais bien lui donner le respect que lui, il a partagé euh, son savoir de la famille. Mmh. Et, je suis très heureux que je peux porter ce savoir euh, et le mixer dans, avec le mien et le porter au Sénégal. Et que vous, avez de la joie. Merci beaucoup, Chapeau à vous. Merci. également à, à Véronica Prince, Prince. Euh, Prince, contact. ah kontaanati nañ parce que bi nga fi jógee dañ ñëw indi la lu neex tey da nga si yokkaat teg si euh, cerise bi si gâteau bi ndax euh, gën naa neexati du ñu bett si jógee si yow. dëgg la maa leen gën ndax ku la ubbil buntam rek defal na la lépp. Mm-hmm. moo may may force bi nga xam na ne ñoom lu ma leen wax rek dañ koy gëm ngir ñoom ndax boo xoolee si yeneen réew wala réew euh, nasaraan yi. dañu noonu musique Sénégal. tey boo xoolee mën naa ne xeetu musique yëpp lañ jël boole ko euh, pour euh, ñoom ñu mën a am dégg-déggin pour dégg ko. Mm. comme nu mu la ko waxee rek samay yeneen morom ñoo ngi foofu di liggéey si loolu mais euh, bunt bi ngeen moo ubbil may ñaan yàlla nag yeneen télé yëpp ñu ubbil ko jeune talent yi ndax. Sénégal. non ah, avéré <laughs> merci merci beaucoup. merci euh, à l'orchestre du jour ndax euh, neex na ñu euh, encore une fois ci rek chaque fois suñ ko découvrir c'est un plaisir. on va passer à la deuxième actualité sur la toile avant de passer à nos deux événements plus l'actualité sportive ainsi que la rubrique 14 millions de problèmes.

si laloon nañ ko ci seen diggante ak ministre du commerce bu bees bi mhm. dafa mujjuta antu loolu nag moo tax ba ki nga xamante ne moo leen jiite di Amadou gay daan ne rek ñoom dinañ inspiré wu ci gilet jaune yi nga xamante ne ñoo nekk foofee ca France ba léegi sax chaque chaque samedi dinañ rek euh, daal di euh, def euh, joxe seen ay revendication ba keroog ñuy am lu nga xamante ne si moo leen gënal li leen gënal nag du lenn lu dul ñu wàññi farine bi wala ñu yokk mburu mi loolee dinañ ko def euh, ba ci weeru koor gi te tant que amuñu lu ñu bëgg euh, duñu arrêté Ndeye Arame Touré grève bi commencé na euh, tey ñetti fan lay doon ci Sénégal gépp am na ñu nga xamante ne sax commencé nañ koo sentir. Mm-hmm. Pape Ousmane loo ndikkee tey. waaw ah, tey sax yàlla dafa def ndékkiwuma. Mm. da nga ko yëgoon. waaw yëgoon naa ne dinañ ko def mais en fait ñàkk ndékki bi dépendre ci ki xëy na dafa am. da nga yorul daal tey. Euh, du ñàkk a yor waaye dafa am ci ma ne woon mayu ma woon ma ndékki. Youssoupha loo ndékkee tey pa bàyyi ñu. mburu comme d'habitude ah. yow amoo problème jënd pain tey. non non lébu yi moom yaa ma gën a xam. dégg nga mën naa yi moom taa yow dinañ la summi de wadd kan moo koy summi per saala ko sant Wade bon te ah mais yow Touré da nga koy simmi. ah, ah kii kat moo ko summee gar. Wade la sant yow yow war nga ko simmi Touré Touré kay Touré ñi sant Wade sant Mbuub Mbaay Samb ñoom ñooy. tëri simmi ko dañuy xëy rek ñam tuuti rek ensuite. ñam rek bàyyi moom kay simmil rek bu bàyyi dara. président Mbaye ah mburu bi doy na ñetti fan. xam nga. bu ko yóbbu ci politique bi la ñëwaatal ci. mais parce que nag <laughs> li nga xamante ne moo fi ne aram mooy dañoo sant kenn pour mu négocier ak ñoom waxtaan ak ñoom muy ministre de ministre commerce bu bees bi. bees bi Aminata Assome Diatta. xam nga teel nañ ko assommé te dara xewul. Eh. ndaxte réussir mission bi ñu ko njëkk a moo nekkoon waxtaan ak boulanger yi pour ñu mun a xool naka la ñuy produire du pain. gis nga man je n'ai pas ce bi ma xëyee lekk naa caakiri bu neex moom laa ndekkee Eh. yaa ngi dégg te xam naa ne suba jàmm ndékke war ko du dara ci man gannaaw waat suba ndékke war ko tam dara ci man ak ci fonde beeg affaire yooyu man séeréer laa man dérange wu ma non man dérange wu ma man séeréer laa loolu dama koy lekk loolu laa gën a gis sama bopp sax mais am na ñeneen ñoo xamante ne bii nii lu luñ mun te def mburu lañ koy booleel guddi dañu reer dinañ xëy nañ ndékki ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite li ma mën a wax mooy nañ jéem a waxtaan ak ñoom boulanger yi tamit dinaa wax ak ñoom mu mhm. leen di wax mooy buñ def chantage nañ jéem a xool naka la ñuy teen wàññee seen loxo allégé pour terrain d'entente mun a am mais bu ñu def chantage chantage baaxul parce que ñoom itam seen ay doomu koy ndékkee seen ay yaay ñoo koy ndékkee seen ay ñoo koy ndékkee seen ay rakk seen ay doom ñoo koy ndékkee yaakaar nañ war nañ trouver terrain d'entente nañ xool ñoom lu ñu mën a bàyyi ñu xool état bii nga xamante ne jàpp naa ni dañoo tële encore une fois xool lan lañ mën a def ñu booleendoo ñoom ñaa ñu jéem a daje ñu xool naka la ñuy régler la situation persa la surtout nag man ñu may yërëm mooy ñiy jaay ndékki femmes yi man ñoom laay gën a yërëm parce que tamit ñooñu ci lañ yor seen kër. Mhm. xam nga supposons da xam day jaay ndekki defar ay ndambe defar ay lii defar ay laa vraiment euh, ñooñu bu nit ñi jëndul day metti ñoom. moo tax toujours li ma wax fi démb rek toujours doole dafay gaañ lu mu yëgul. Mhm. tey grève bi nii 72 euh, heures yi ñu wax ne dina am ñoo xam dinañ ko yëg trop trop trop. Mhm. tey mais am na ñoo xam ne il faut ñu ndekki il faut ñu lekk mburu comme xale ñiy jaay ndekki ñi ñi ñi nga xam dañuy jënd di jaayaat ñooyu yëpp nanu xool nan nanu xool rek li nga xam ne moom mooy njariñ li ñu trouver terrain d'entente peut-être comme ak ministre bi mi ngi waxtaan ak ñoom xëy na paa yu njëkk yi déggoowuñu mais xam naa ne solution dina am mm. parce que lii baaxul ci seen ñoom ñi nga xam ñooy liggéey baaxul tamit ci askan wi parce que ñoom bu ñu toogee banque seen loxo du ñu liggéey ah bu yàggee ba yàgg ñoom seen gaf seen gafaka bu resee mm. mu fanaan ko wéetal tëjal bunt war a Il y a 14 millions de problèmes tout de suite. 14 millions de problèmes avec notre budget. Quelle est ngay am solution La solution yi ñu ngi koy chaque jour de mais ça y ñu une solution bu ñu xëyee un problème taxawaat. Hmm. moo pour résoudre les problèmes. on va parler d'incivisme un mal très profond au Sénégal. effectivement Ndeye Arame Touré parce que euh, gis nañ ni euh, jamono ji réew mi ni mu tëddee dafa doy waar doolu parce que da ngay gis ay magum jëmm yoo xam ne euh, ñuy am yenn comportement yi yow sa bopp daf lay jaaxal te dañu naan yar surtout yar bu njëkk ba nga xam ne da doom tàmbalee ci li nga xam mooy ci kër gi bu jugee ci kër gi nga dem ca école ba ñu yar la fa mm-hmm. même ci mbedd bi sax dañ la fa doom yar te école bi tam amoon na si benn pàcc bu am solo loolu ba tax na sax amoon na benn matière boo xam ne ñu ngi ko éducation civique mm-hmm. Tay jamono ji eh, ñi ngi lam mais nak éducation civique bobu ça existe toujours ou pas Nous lolu dañ la ci dom jàngal ci école bi euh, ci mbedd bi ak sax ci biir kër gi ba taxna ñu jotoon wacc ci terrain bi euh, jotta dem ci ben école fa ñi nga xamné ñoy ay ak yi fay ci plateau waaw xam nga éducation civique dañ ko changé maintenant les tourbis. bi vivre ensemble mais ba léegi mi ngi am ci école yi. ñu ngi jàng la divergence d'opinion la divergence d'appartenance la promiscuité ay essayer. école du yar éducation kër commencé ba pare Les ñun bu ñu ñëwee aussi ñun suñu première option moom mooy ñu jàngale mais boole waale ci dañuy tabax xale bi ci ne ko lii comportement yu baax yi te tout autour de lui parfois day gis ay comportement contraire ndax soo xëyee ci suba xale bi euh, ca këram ma ngay gis loo xamante ni la par rapport ak li nga koy jàngal mu dem ci mbedd bi la même chose bu peut-être il sera amené mon ci boppam muy laajte ndax liñ koy wax am na sens. ñun ñi ñuy toppee xale yi CI 2

suñu maam moom dañ kaa war a respecté comme niñ ko defee suñu yaay drapeau moom ku koy lever moom dangaa war taxaw waroo bouger waroo def dara. nit ki boo koy boo koy jàngal xam nga jëkkoon dañuy yar di dóor ak yooyu déjà boobu dañ ko autorisé mais léegi déjà dóor ci boppam du du solution. tey koo wax doomam dara boo sàgganul yàgg moom police ngeen di mucc. merci beaucoup euh, Awa Badji ah, ban école nga demoon ni euh, école bi HLM la nek Aram fi rek tout près vraiment ñu yombalal noonu ñu liggéey bi trop sax te euh, comme ñom nuñ ko waxé nee nañ éducation civique bobu mi ngi existe existé ba tey matière bi mais appellation bi la ñu changé mhm. léegi ñu ko tuddé vivre ensemble légui ci vivre ensemble bobu ñu ci continuer di jàngal xalé yi sen comportement ci biir école bi ci mbedd bi ak ci kër yi mais problème bi ci am moy nee nañ école bi léegi euh, permettre tuñ leen ñuy yar yenn yar yi mhm. maanaam ñuy dóor wala même bu dul dóor sax ndax ñoom nee nañ duñu dóor mais nu ñu doom yare xale yi ngay génn ci mbedd tas ak sa prof di tiit léegi loolu amatul wala nga nekk ci école bi ñu lay yenn de tele sorte que yow boo déggee sa trou maître sa dangay ngay tiit. man dañ lay accuser parents yi ñooy ñëw voilà mi ngi koy wax ci li nga xam ne moo di élément bi nee na léegi parents yi boo yaree doom yi yenn yi wala nga wax leen yenn yi sax da dañuy ñëw accuser la ci école bi ba pare mun nañ nekk ci biir école bi ñu jàngal leen euh, nenn noo xam ne noonu lañ war a doxalee ñu dem seen biir kër yi ji changement day am. ñu mm-hmm. uuteeg loolu lañ leen jàngal ci école bi wala ñu génn ci mbedd bi pareil. après xalé dañuy dem banane est-ce que ñun sax lu ñu wax ci école bi est-ce que no réellement non la wara démé parce que gisunu ko ci seen wajur gisunu ko seen waa kër gisuñu ko ci li nga xamné modi ci mbedd bi alors que xalé sax ñi ngi wax naan ñom dañ leen di jangal ay bu ñu génnee ci mbedd bu ñu gisee kuy saw ñu nako li ngay def baaxul ben xalé bi mi ngi naan mom dafa dox ba gis ben pot de banane mu for ko duggal ko ci poubelle bi mm-hmm. té lolu dañ leen koy jangal yépp ci école bi mais euh, maître yi joxe nañ ay bu xalé yi di def lolu te fekk mag yi ñooy sànni nag te voilà lolu motax na

muy ci dawalkatu oto yi ci liggéeykat yi jaaykat yi ci mbedd mi hmm? man mii di waxanteeg yow ñu ñu ñuy teg ay daan ñuy xool ndax ñu ngi ñëw heure di wàcc heure di def lu ñu war a wax ci classe bi hmm? keneen ku nekk mu bu amee sanction rek bi nga xam ne dafay am suivi léegi-léegi ku nekk moo xam ne lii boo ko defee lii moo lay xaar. nañu sensibiliser ñëpp man dama naan. Euh,

man personnellement il m'arrive ma baleel sama bopp sama classe mais da ngay gis da ngay bind list balayage parent bu nekk ñëw na la bëgguma sama doom bale dafa amee asthme bëgguma sama ding après ñu bëgg classe bi set kan moo koy setal su fekkente ne madam mun na sëgg di bale quand même man na wala sama doom góor la waru bale man je leur set amul góor amul jigéen liste yi góor ak jigéen ñoo ciy nekk

C'est sensibilisation hein, pour faire au moins message bi euh, nek ci mais également nous donner le bon exemple pour fexe xale yi mën si roy. waaw donner le bon exemple Aram parce que da ngay génn ci mbedd bi gis ay mag yoo xam ne dañuy tuur ndox ci mbedd bi gis ñuy lekk di sànni ay kayit wala gis yenn comportement yi ñuy étaler ci mbedd yi di jaay fu leen neex mais mi ngi dellusiwaat également ci li nga xam ne moo di parent yi parce que parents yi il faut que ñu jàppale leen ci yar bi mi ngi koy wax ne classe am bu ñu defee liste ne xale yi nañu bale parce que école publique yi lu bëri xale yi ñooy bale classe da ngay gis benn parent jóge fa sama doom dafa asma mm. wala ñu ne góor bi na bale wala na kii mu dem si kër gi ñu ne ko noonu sama sama doom mënul balé góor la yooyu non daf leen sonal il faut que parents ñu jappalé leen li ñi def ci classe bi bu ñamee ci mbéd bi ñu appliquer ko mais également il faut que tamit autorité yi ñu taxaw ci pour que nit ñi mëna changer parce que kérok bi fi invité ki nga xamné ne moo di euh, maire Gueule Tapée mi ngi doon wax né avant ñoo euh, génné nit ñi fa ñu nekk il faut ñu xol fañ leen di yobbu bu ñu jëlé suma né autorité nee autorités yi jàpp si mooy que mbéd yi bala ñu naan nit bu doxé bu safee saw bu tour ndox bu ko def ci mbéd dañ tek au moins ay toilettes publiques yo xamné euh, ci mbéd bi wala sax au moins nit ko xamné ne dafay dox ci mbedd bi euh, di lek après yorul fenn fu mu def papier fu mu koy sànni il faut mu sandi ko ci mbedd bi ñu mën def ay bac à ordures ñu tek ko ci mbedd yi pour nit yi c'est pas forcément la solution hein, parce que tamit bac à ordures ci zone yi nga gis yu mag yi nekk fa mhm. euh, nañ fay touré mbalit da nga yërem sax ñi koy toon sénégalais yi ci boppam ñoo neexul jàppale waa sénégalais yi ñoo neexul jàppale deug la aram mais il faut que tamit ñu jéem ñi nga xamné moy mooy les euh, ñi nek ci mairie yi il mhm. faut que ñu jéem tek yenn acte yo xamné après peut-être que nit ñi nañ leen si mën a fekk si peut leen waaw accompagner leen guddi ñuy nettoyer dëkk bi comme ça peut bu ñu xëyee ñi nga xam ne ñoo doon nettoyer ñu mën a pointer ci côté bac à audio du surveiller nga xam ne mm. boo ñëwee def naka su dul noonu ñu ne la defoo ni wala amende yi foog ñu jéem a di teg amende yi di ko gën a dëgg di ko waaw di ko gën a dëgg parce que pour que nit ñi au moins sax booy def dara nga tiit ne en retour dinañ ma euh, tëj wala dinañ ma euh, daan xaalis mm. yooyu noonu ñuy def daal ay exemple qui servir pour que nous puissions changer son comportement. J'aimerais que euh, Véronica nous dise comment elle a vu la capitale quand elle est arrivée. Je parle de, de du cadre de vie. Vous avez été surpris de voir comment est configurée notre capitale. Ne, comparez pas à, la vôtre. C'est pas pareil, certes, mais euh, est-ce que cela vous a interpellé J'ai pas vu beaucoup de cap euh, j'ai vu beaucoup de um, euh, Pékin et Dakar un petit peu. Mais pour moi, c'est euh, une expérience que je ne peux pas expliquer. Mm-hmm. C'est tant beaucoup de, choses pour moi à voir, d'activités et une monde différente ça me plaît beaucoup. Vous voulez certainement pas nous frustrer, c'est pas grave, on a compris. C'est trouver une autre façon de nous dire, c'est vrai que c'est ça, mais bon, c'est une découverte, je suis en train de <laughs> découvrir un autre univers C'est un autre univers. Mais c'est ça. Euh, <laughs> on le reconnaît au moins. Père Sala, y dafa am lu am solo loo que ne président Mbaye euh, toilette publique y a zone yoo xamante ne nañ ko fa vingt francs pour que mun ko utiliser nit yi di pour bañ fay juróomi. ah mi ngi noonu mi ngi noonu rek sénégalais ñun ñun ñun la ñun ñun danoo metti da ñëw sax fekk fi ñu def mbalit bi mu fees nga ñu sotti suuf. mu nga ñëw sotti suuf Cheikh Ahmadou Bamba bu HLM bi. Ah. loolu moo tax mairie dañ ko doon tuur si kaw tali bi. si kaw tali bi. donc loolu noonu après dafay yàqal ñi nga xam ne sax dañ fay liggéey. du dañoo obligé dingi ñun la rek gis nga li mu am li am solo rek gis nga éducation civique bii ñuy wax nii ci biir kër yi la war a tàmbalee. mooy liñ demee liñ demee woon rek gis nga nit ñi ci kër gi nga démarrer yar sa doom nit lu muy fu lu mu mel fu mu dem comportement boobu lay yóbbu. Mm-hmm. il faut nit ñi ñu yaraat ñu yar xale yi. parce que boo amee chance ñu yar la war ngaa mën a yar sa doom quoi parce que bor la booy fay. yow am nga chance ñu yar la yaru nit ki yiw war ngaa mën a yar sa doom yaru nit ki yiw ni ko lii bul ko def lii baaxul xale loo ko wax. day xam ni lii baaxul mm-hmm. am na xale yoo xam duñu ñaan boo leen may dañ ñaan du ma ko jël sama papa dana ñaan xaalis baaxul mm-hmm. faut jamais nga may leen mm-hmm. koy tetee am rek ak ci ni ko war a éduquer ak war a xam ak li ko war a xamal mais léegi dañuy jënd lii rek jox seen doom yi même ci biir néegi sa doom daw da tëdd sa doom nekk biir néegam mais xamoo lu muy def dëgg moom daal yàlla ñu yàlla jàppal suñu njaboot gi daal njaboot gi daal ñun daal doy na waar

ngay ñëw ki ñëw ca kër ga wala nekk ci mbedd bi naan la kaay bisu tonton kaay chéri tonton xale amul chéri amul bisu xale boo jàngal chéri bisu day yaakaar c'est normal man sama doom kenn du ko bisu kenn du ko wax chéri kenn du ko wax dara loolu moo baaxul xale yi da nga leen di ñu yar leen yaru normal mais kuy jël xale bi ne ko viens bisu à tonton kaay fóon ma xale lu muy fóonee mag soo bëggee fóon nga dem fóoni sa jabar <laughs> waaw jabar handball waxtaanee <laughs> les, résultats, Djadji Sar, Diamono, 25-21 <laughs> pour Diamono. Tuaon Saltigue a été reporté euh, et Gaston Berger exempté pour ce groupe. Et, pour la poule B, Dissot Duc 30-19, dimanche, Kaolak a battu Kafrine 25 à 23. Issek a été exempté. Je rappelle que Renaissance est leader du groupe euh, de la poule A et Duc leader de la poule B. Et pour les hommes, les résultats également de la troisième journée. Poule A, Duc euh, Saltigué, Saltigué qui bat 25-23. Duc euh, Saloum qui bat Tamba 26-20, exempté à soi. Puis la poule B, Sandemour qui a été battu par Gorée 35 à 34 à 25. Et euh, Olympique de Durbel qui a été battu par la Jeanne d'Arc de Dakar 24 à 23, exempté rail. Je rappelle que Asfa est leader du groupe A et Jeanne d'Arc de Dakar leader du groupe B. En basketball national 1 masculin, les résultats ou le programme de la 21e journée Le programme de la, de la 12e journée du championnat de basketball national 1. Tout à l'heure, au stade Marius Ndiaye, Douane Saint, le basket club Asfo Iso. Pour la poule A toujours, Tamba Jeanne d'Arc de Dakar. Et demain, au stade Marius Ndiaye, Basket Club ASTS. Et pour la poule B, à Saint-Louis, UGB, ville de Dakar. À Louga, Louga Basket Club Rai. Demain, toujours au stade Marius à 18h30, Dakar Université Club qui reçoit Saltigue pour terminer Mermoz Basket Club Sibac. En NBA, quelles sont les affiches de cette nuit Conférence S, 23h, Boston reçoit Indiana, 0h, Milwaukee Detroit. Pour la conférence Ouest, Houston recevra Utah Jazz. Parlons football, Cannes U17, le programme. Le programme, tout à l'heure, Nigeria, Angola, Ouganda, Tanzanie. Et je rappelle que demain, Cameroun, le Maroc, c'est le groupe de l'équipe nationale du Sénégal. Et à 14h, le Sénégal reçoit la Guinée. Juste pour rappeler que pour la poule A, euh, c'est le Nigeria qui est leader et pour la poule B, le Cameroun, le Maroc, suis le Sénégal pour terminer la Guinée. Demain, ce sont les deux premiers qui vont se retrouver. Maroc, euh, Cameroun et Sénégal, Guinée pour l'autre match. Ce qui veut dire, on avait fait marcher nul lors de la première rencontre. Mhm. Éventuellement, si on gagne la Guinée, on se sera très très très bien placé pour sortir en phase de groupe. la Ligue des champions les résultats et le programme du jour. les résultats et le programme du jour je rappelle que tout à l'heure Manchester City à 19 reçoit à l'Etihad Stadium les Spurs de Tottenham à l'Itihad Stadium, Tottenham qui avait battu Manchester City 1 but à 0 à l'aller. C'était la semaine dernière. L'autre match, Liverpool, ils s'était imposé à Anfield 2 buts à 0. Lui aussi va se déplacer du côté du Football Club de Porto, Felice Portugal. Liverpool est en avance 2 buts à 0. Il faut bien gérer ça. Et hier, je parle du fils de Maria et de Horacio. Lionel, Andrés, Messi, Kukushini. Kukushini, c'est le nom de sa maman, Lionel Messi. Il a encore frappé. Il a perdu au Football Club de Barcelone. Je ne vais pas dire le natif de Rosario, ni le père de Xavi, le père de Matteo. Il a encore frappé très fort. Il a, à il a porté le Football Club de Barcelone. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Et de l'autre côté, non, je vais encore rester sur le Football Club de Barcelone. C'était un match qu'ils avaient gagné à l'aller 1 but à 0. C'est ici, sur ce plateau, que j'avais dit le Barça n'est pas le Paris Saint-Germain. Certes, Manchester United avait éliminé les Bleus Blancs au Parc des Princes, mais au Camp Nou, c'est autre chose. Et les partenaires de Lionel Messi ont, ont, frappé très très fort le joueur qui est venu en Espagne en, 2000, en 2001. Il a signé son contrat, il était malade, il avait des problèmes pour grandir, problèmes hormones. La amon konga xamantene Lionel Messi, mais Mingela, celui qui a amené Diego Armando Maradona fofu à Barcelone, mom lañ ko les les dirigeants catalans. Ce sont ces dirigeants là qui ont signé un contrat qui mouchoir lañ signé ci ben restaurant foofu Catalogne ça prouve encore une fois la chance de ce jour. il n'était pas grand il était petit On a ko problème hormone à mais de par son talent de par son courage très effacé il commence à surplanter classe à surplomber à être efficace sur tous les plans le football. Plus de 600 buts en 2018. Lionel Messi compte à son acte 5 ballons d'or et il file tout droit vers son 6 ballon d'or. C'est sûr que c'est la champion d'Espagne cette année. Il peut gagner, c'est la Copa del Rey, c'est la Coupe d'Espagne. Et il est en demi-finale de la Ligue des Champions. Quel moi, adversaire le programme du jour soit Liverpool ou le Porto Ajax d'Amsterdam hier cette valeureuse équipe de l'Ajax, ce sont les dignes successeurs de Nesten, les dignes successeurs de Johan Cruyff et de Muriel. L'Ajax d'Amsterdam porté par un Freddy de Jong. L'Ajax d'Amsterdam qui a gagné la Ligue des Champions en 71, 72, 73. Cette même Ajax d'Amsterdam qui a gagné la Ligue des Champions en 1995. Marc Overmars, Danny Brind, Georges Finidi le Nigérian, Yari Litmanen, Overmars, Ronald debout Cette très belle génération s'est imposée au Juventus Stadium hier 2 buts à 1. À l'aller, ils avaient fait un but partout. On pense c'est que le tournoi porté par CR7, le natif de Madère, allait s'imposer, mais c'était le cas contraire. La valeureuse équipe jeune équipe de l'Ajax d'Amsterdam s'est imposée et se qualifie pour les demi-finales de la Champions League, la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles. Son adversaire du soir va être l'équipe de Tel et de Tel, Manchester City et de Tottenham. non du ko jël non mënu ko jël du ko jël ndax perte nañ moo la benn affaire chance la doon baax sax Barça daje ak Liverpool Liverpool gagné ko Sadio Mané dugal but bi ñu dem final Sadio Mané mhm. dugal but Coupe Sénégal bañ gagné Sadio Mané jël ballon lu war a a nekk la parce que mën na nekk je donne xam condition Liverpool élimine Barcelone et en cas de d'Afrique des Nations Liverpool Sadio Mané porte Sénégal bañ jël ko war na mun a jël kii war na mun a jël li nga xam te ne moom mooy ballon d'or ballon d'or ballon d'or mondial effectivement parce que moo la benn affaire ils sont bien partis pour remporter li nga xam te ne mooy Premier League moom moo leen gënal fukki junni yoon jël championnat jël Ligue des champions parce que nag depuis 1990 ñu ngi ciy daw Manchester moo ko ëppale 20 Premier League Liverpool am 18 Premier League te loolu moom moo leen gënal ah oui merci merci beaucoup l'international Mbaye Sène l'administrateur de Sport Inter point TV ah, euh, ñu koy euh, jaajëfal ci li nga xamante ne indil nañu ko tey on passe aux deux événements du jour. njëkkee euh, Damel euh, John porte-parole de l'association des jeunes couturiers de euh, Tiaroy. Maïwa Sanksi wax si commencement bi ne a ngi remise de dons boo xamante koy les prisonniers yu nekk Forbé. bon salam maa ngi nuyu ñi si plateau bi bon association bi ñu créé de 2009 bon association bi aussi bi ko créé ci volet social rek lay dox quoi. Mhm. volet social bi aussi ñu am ci ben euh, patch bo xamanteni ci ñu ko jagleel wa Forbe quoi remise de don la. dañ leen ñawal ay yére yobul leen ko bon si kaw yére ñu leen di yobul aussi dañuy dem ndekendo ak ñom en plus suñu démé waxtaan ak ñom pour jëm leen a ci société bi. Mhm. parce que arab aussi il faut xalé yi nek fofu ñu xamni buñ bu ñu leen yóbboo foofu c'est pas parce que dañu leen fa yobbu pour euh, euh, pour sen aduna yàqu.

actuellement atelier bi ñu ko yóbbu presque moom mooy dagg mooy ñoom mooy def lépp. comprendre nga foog naa ne loolu aussi lu am solo la. moo tax vraiment dañ ko bëgg a yaatal si kaw yaatal boobu moo tax ñu ñëw fii pour présenter wu. Mhm. kañ ngeen lañ koy def muy dimanche bii di ñëw. waaw waaw le 21 bi lañ koy def. ci bëccëg gi wala. waaw si suba gi rek lay nekk parce que dañuy dem ndékkeendoo ak ñoom. parce que boo ñu fa fekkee doo xamee kan mooy. kan mooy kan doo xamee kan mooy kii bi parce que dañuy ñëw jaxasoo ak ñoom. ndékkeendoo ak ñoom waxtaan ak ñoom ren aussi bon vraiment ñu am si site quoi comme invité comme gis nañu xale yi bëgg nañ ko mm. bon ñu bëgg a ñu bëgg a jaarale suñu message ñu bëgg ko jaarale ci moom parce que wax dëgg yàlla bi mooy quatrième édition bi aussi ñu koy def te vraiment boobu ba léegi tamit ñu ngi ciy gis parce que association membre yi ci nekk dañuy ja dañuy gis ni vraiment li ñuy def ni jaamu yàlla la ko mm-hmm. loolu moo tax gars yi gën ñu gën ci sawar a chaque fois bu bu excès da ngay gis membre yi dañuy actif seen dootuñu tal dara quoi

Euh, ci collecte même bu fekkee am na derrière yenn initiative yu ñu ko def pour gën a sensibiliser. xale déjà ñoom ne jot nañu jël euh, benn ci ndaw yooyu noonu ku génn. exactement ba permettre ko tey mu mën a am liggéey. imagine yeneen corps corps de métier bu ñu defoon pare ça veut dire que ne xale yi fay nekk même bu fekkee am na ñoo xamante ne jàng sax wees na mais au moins nañu am métier. bu mhm. man initiative bu extraordinaire la boo xamante ne franchement. Euh, per ndax atelier moom jot naa jël benn ndaw formé. non non mosuma ko jël na wax dëgg yàlla. mais kaw mi kaw mi mooy fële centre sauvegarde. bu géejawaay bu géejawaay kaw mi lañ ko daan wax à l'époque il y a yóbbu xale yi formé kaw mi lañ leen daan yóbbu. Mhm. foofu lañ daan formé parce que amuñu ak fu ñu tëj leen bon am na fa ay xale yoo xam jotoon ñaari xale yoo xam jàngal naa leen métier. Mhm. xam nga lii lii mooy développement ñoom seen métier la ñu yor ba pare ñu ne suñu métier duñ ko yemale ci ñun rek nanu dugg ci foofu parce que ñi fay dugg la plupart. bon am na lu ñu fay organiser dañ fi organiser ay lamb dinañ fi organiser jël af ay don jox leen ceeb mais xoolal xale bu fa nekk nga dem ba mu am métier kooku bu génnee dina ne mën na mhm. la kenn du ànd si métier di torox loolu moom vraiment moom loolu dañu leen a a a mhm. mhm. naa def leen waaye ko génn faaw nga sol yére ah. xanaa xaw ne bu ñu ñëwoon euh, bu julli amul yére ku ñëw sa papa ilimaan nga mer. merci tey joxagum nga ma ñaari avis du man persa la <laughs> euh, <laughs> ah, message. te aussi euh, am na lu ñu xalaat. tamit mm. parce que xalaat nañ parce que li tax sax forme bi jóg mooy dañu xalaat ni xale yi fay jóge ñu ci bëri si banlieue bi lañ dëkk. Et comme nous aussi si banlieue bi lañ dëkk ñu bëgg apporter suñu contribution au niveau de notre localité. loolu waral mais si xam nga bëgguñu tamit bàyyi ba xale bi nekk fa ñu fay quoi parce que am nañ idée wu aussi Nous nañ ñu accompagner parce que tamit il faut bonne volonté aussi comme ni ko Sala waxee. lii développement il faut bonne bonne volonté aussi seet ñu parce que am nañ projet boo xam ne nous bëgg nañ taxawal benn centre boo xamante ni si yi parce que xale yi ñu si bëri. am jot rek moo leen di yóbbu quoi. parce que du am lu ñu def. bu occupation dëgg ko sa mbay waxee parce que souvent parents yi mooy loolu bu ñu xëyee dépense beeg yooyu tal. du tal xale yi léegi xale yi bu ñu jot moo leen dugal si yenn affaires yi. loolu moo ñu bëgg wut benn centre boo xamante ni si yi xale bi fa ñëw ñu jàngal ko métier merci en plus dans les ci quoi. Euh, Damel euh, John porte-parole de l'association des jeunes couturiers de Tcharoy. Nous avons aussi Youssouf euh, Wade di président Sciences en Herbe Nous allons borom xam-xam nga. Ah, ñu fi wax rek ci erreur deuxième édition Sciences en Herbe la grande finale qui se prépare. bon assalamu alaikum tout d'abord Je suis nuyu ici ñi la plateau bi di nuyu à travers la la DTV. Donc, comme vous l'avez dit, je suis le président de Science en Herbe. Donc, Science en Herbe est un projet qui vise à valoriser la science à travers le Sénégal, mais particulièrement dans le département de l'Office. Donc, dans ce sens-là, nous avons mené pas mal d'activités mhm. et nous avons une, une activité en cours qui est dénommée Scientific Challenge Over. Donc, Scientific Challenge Over, c'est une compétition scientifique de jeunes en herbe et de débattons au sein du département de Rufisque. Donc, c'est la deuxième édition. L'année passée, on l'avait fait, mais c'était uniquement au niveau de la commune de Barny. Cette année-ci, on l'a élargi au niveau du département. Donc ça concerne six lycées exactement du département qui compétissent en génie en herbe et en débattant. Et cette compétition-là, l'objectif visé, c'est de participer à l'amélioration des performances scientifiques et culturelles des élèves et aussi à leur permettre de s'exprimer en public à travers les matchs de débat qui, s'organisent. Très bien. Alors, euh, c'est euh, une première que vous faites ça euh, que vous puissiez aujourd'hui organiser cela dans le département. Mais au-delà, j'aimerais savoir comment se fait la sélection pour que les gens puissent participer à cette compétition-là. Bon, la sélection, ce sont les établissements parce que ce sont les établissements qui compétissent entre eux. Il pour les jeunes en c'est trois niveaux, Second S, première S et terminale S. Pour les débattants, c'est un, niveau confondu où il y a tous les trois niveaux. Donc, ce sont les établissements qui choisissent les équipes pour les jeunes en, en seconde, en première et pour l'équipe de débat. Et ceux qui sont dans le moyen secondaire Effectivement. Ensuite, les lycées vont compétir entre, eux au sein du département. compétition, Il faut, au-delà de l'aspect euh, Toubab Nasaran, il faut, comprendre, <laughs> il faut comprendre le langage scientifique pour être dedans. Mais on, va, on peut mixer avec le. Moi, j'avais compris sans que science en herbe, les filières scientifiques, maths, physique chimie SVT ok wala gën ko yaatal. bon science en c'est beaucoup plus vaste que ça. Mm-hmm. donc c'est la science de manière générale quoi. d'accord et la finale bi ñu prévoir ko prévoir euh, samedi bii euh, le 20 au niveau de amphithéâtre lycée moderne ça sera à partir de 15h30 donc ba que si c'est un débat ça va être le lycée de Diop qui va affronter le lycée Plan Jaxaay ensuite en général aussi il y a six équipes qui sont en finale comme.

bàyyi leen li ngeen nekkee eh, lii la wax nag da war di lijjanti problème yi rek di ci jéem a indi solution ah, seen kanam yi kat daf ma nuru ñu nekk ci lii sax moo yow garaaw yow tëb naa la Pape nag yow moom dépassé nga kii président Mbaye

combien de mujj Ça ça très très bien. Oui, combien il a am sa note nga naan ma Pourquoi très. parce que moo Merci merci beaucoup président Mbaye alors ma Véronica qu'elle nous fasse un dernier message pour vos fans ou ceux qui vous suivent avant qu'on clôture cette émission. Oui, on expecte avoir beaucoup de gens dans nos euh, concerts et on se réjouit beaucoup, beaucoup pour faire oui. ce tour, tourner au Sénégal. Très bien. Personne alors Merci. troisième avis du jour. <laughs> non tellement. dama <laughs> tey sax le quatrième parce que suba suba damay tourner Il émission. ah non su ma feebarul damay liggéey tourné émission lu mu jotee ak suñu bos 17 heures laay tourné mais nga kale ko heure boo xam ne ñun duñu yàqal non heure boobu <laughs> waaw kon ngeen dem ñaan Sidi bu ñu wàccee ñu wàcc Sidi ñu demandoo ci Sidi <laughs> ngeen ñaan ko mën na taxawee ne liñ ñaan njiit sàkkul njiit oh. njiit sàkkul boppam yàlla mooy sàkk njiit mhm. te gis nga nit bu nit ñi di wut alal wutal nit mhm. boo amee nit di nga am alal am nit alam boo amoon téeméeri junni daf ko sa poos mun na réer mais sa téeméeri nit ñu réer te sa téeméeri nit yooyu ku ci nekk bu la joxee sa téeméeri junni day mat Souleymane Faye dama dégg mu wax ci benn wooye mu ne dafa mës sa dem ni papaam ni ko papa man daal li tax nit ñi lu ma am dama koy bokk ak ñoom te lu ñu am duñ ko bokk ak man mu ne ko doom yow booy baax baaxal rek bu xool ko bon ak ku baax yow baaxal rek loolu Alaaji Mor Mbay waxoon baax boppam bonuk waay boppam boo guddee fan xam ci dara xanaa xamoo nit kii boo sànnee balu tànk ci miir bi rek sa kaw lay dellu si looy sànni nit na doon lu baax ci kontaan naa ci amoon Njaay Samb bi na biir waay heure boo sànnee dara muy dellu si yow bu mu diis parce bu diisee bu la fekkee gaañ la mooy mbub mi ngay natt nag di ko solal nit balaa nga ko solal nit solal ko sa bopp mais léegi Sénégal dañuy sangu suñu bopp ba mu set di xajamal aram mm. te amaana sax aram moo gën a set la góor ga waxoon naan kuy naan ngelaw boo gisee caag li def doo rey sa bopp ah. Sénégal de bi et caagri <laughs> bonne nuit. Merci beaucoup, Père Salam pour la leçon du jour. Merci également à, toute l'équipe et mention spéciale à Prince Moussa Sissoko et Véronica Ndigo. On se retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. Légui euh, Légui, Ribarou Marachi, avec Serine Modou Mbakenya. Djangin Diofé, excellente soirée sur la DTV.